dal leen ak jàmm mbokk internet yi tey jii ci suba si ñu yeewoo kaasu xibaar bi nga xamante ne moom moo jëm ci wàllum autopsie biñ doon amal ci néewub Iba Thiam mi nga xamante ne dañ ko fekk mu faatu ci ab l'appartement fële ca Almadi ci biir Ndakaaru docteur yi doon saytu néew bi wax nañ ne ki lee di Iba Thiam li ko faat mooy ab crise cardiaque boo xamante ne li ko waral mooy ab overdose maanaam jëfandikoo dorog bu ëpp Iba Thiam directrice administrative et financière bu Dak Afrique Group nekk ab société bu mag buy liggéey ci wàllum conseil d'intermédiation financière et de marketing moom mi nekkoon directrice su société boobu nekkee foofule ca Point E faatu na ñàkk na bakkanam ci ab appartement bu bakkane lool ci guddi aljuma tombeek ñetti fan ci weeru avril jëm ca Kawaga ñeenti fan ci weeru avril moo ngi ñàkk bakkanam ci boobule appartement bu mu demoon daje woon fa ak ay àndandooram ngir benn soirée privée buñ fa amaloon la a feebar bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi nga xamante ne moom la waa kër docteur yi joxe moom moo ko mujj ba mu mujj di wëccu deret fa la jaaree daal di ñàkk bakkanam ginnaaw bi ko ba yoon mujj leen teg loxo bari nañu lool waaye bokk na ci ñoom ki ci gën a fës di Dame Amar gorob woykat bii lay di Youssou a nekk doom ci Ameth Amar ma woon nekkoon itam borom Eneema Sanders moom ak mbooleem àndandoo ya fekke woon boobule xew-xew yoon teg na leen loxo jamono ji ba sax dina leen benn déféré tey ci àllarba ji ca kanamu procureur bu ñu sukkandikoo ci waa journal l'observateur mel na ni kenn dong képp kot lañu bàyyi muy Ayla maanaam gellub française bu dam Amar bi nga xamante ni ma nga cosaanoo ca Tunisie daanaka sax moom bu ñu sukkandikoo ci kàddu Dame Amar moomule moo taxoon dam Amar daal di loué boobule l'appartement fi mu toll nii moom dong moo ca muccagum moom la ñu bàyyi mu dem waaye ña ca des ñëpp yoon teg na leen loxo te leen di toppee nag mooy ñoom ñëpp dañ doon jëfandikoo dorog ba tax yoon la di leen joxoñ baaramu tuuma ci yile may bëgg a lim association de malfaiteurs maanaam lëkkaloo ci jëf-jëfi ñaawteef usage de drogue maanaam jëfandikoo si neebar non assistance à une personne en danger maanaam ñàkk dimbali kooko yooyee woon la ci waxtu woo xamante ne nekkoon na ci diggante dund ak dee ak violation de la loi sur le couvre-feu maanaam ñàkk sàmmonte ak ndigle yi kilifa yi wax ne nañu toog ci suñuy kër ci suñu yenn waxtu yi jotee te itam di tere bépp bépp ndajaloo kii di Amadou Niane itam moom baaraamu tuuma bi ko yoon di joxoñ mooy recel de malfaiteur jërë ngeen jëf